ñu ñëw ba yar buuse wax Balla Bamba dañ koo gëm daa bëgg ko xam waaw moom moom nitu nit ñi la quoi moom nit ñee ko bëgg barke sëñ Bamba daa bëgg ko xam borom baax la te bàyyi fa la ay war seeram bari nañ waaye ay ay araf dañ ko arafas arafas du dara dañoo taan giir dañ ko jox arafas barke sëñ Bamba dañ ko jox arafas mais buuse li jooy at bi ñaata yoon nga ci jooy jooyu bànneex ñaata yoon waaw yal naa ko yàgg a jooy noonu ya jooyu bànneex waaw parce que man ku may àndal dama lay yéene ndam boo amee ndam nag dootul mën a téye sama bopp loolu rek la man du ma ànd ak nit di ko cof wala di ko taxal ay ndëgg sërëx wala di xool ci moom alal wala di xool ci moom lu mu am lu mu amul man ku may àndal dama bëgg nga gën ma sax wala nga jiitu ma ma topp sa ginnaaw loolu tax Serigne Touba Xaadim Rasul di ma teral man noonu laa mel man loolu sama secret sama secret mooy yéene nit ñi jàmm yéene nangul nit li ko yàlla defal lu am solo man ñi may àndal ñëpp dama leen a nangul waaye barki laa ilaha illallahu barki Seydina Muhammad ñi may àndal yëpp lu ñu am am naa ko barke Cheikhul Khadim mais nangul leen li yàlla dogal si ñoom moo tax Serigne Touba di ma teral ñëw ci combat bi combat bi diggante Balla Gaye ak Bombardier dañoo gisoon buuse di sinab lu Balla gay def ñu sinab bii yoon gisuñu buuse benn yoon wër nañ ko ci sinab yi wër nañ ko ci stade yi buuse lan moo la def loolu lool ba kenn ah, parce que dañoo man Aziz Ndiaye Balla Gaye 2 Baye Ndiaye ak ñi ñu war Masata ak ñu ñu war a toogal ñu toog ci néeg tëju ñun kese ñu waxtaan xool li ñuy yàqal ñu dégaase ko xool li ñuy jëmale kanam ñu génnee ko loolu moo tax ñu ne tekk Balla mii ne tekk Masata ne tekk Aziz ne tekk ñëpp ne tekk ba yàlla may ñu ndam beneen combat am na beneen nuñ koy doxalee ñeneen am na nuñ koy doxalee ba keroog yàlla di def jàmm ci combat yëpp incha allah. mais bi bi ñuy bëree ñoom ñaar arbitre sifflé bombar euh, Gris Bordeaux dóor Balla ku mu dal Balla kaaw moment boobu gëmoon nga ni di ngeen am ndam. barke Serigne Bamba Xaadimu Rasuul xam naa li indi xam naa li may indi lu wóor la. te xin indi mbër mi ma indi mbër mu gëm boppam la bal la dafa taxaw ne mbër dootu ko yab ci àdduna ubbi leen seen bët ngeen xool nekkul mbër buy gaaw a jël décision bu jëlee décision rek jeex na da nga mës a dégg Balla wax lool léegi seetaan leen combat bi sa prochain adversaire yaa ngi am càppaacoli bi te ñu bari nee nañ li nga bëre Gris Bordeaux daanul booy benn càppaacoli moo am ci làmb muy Balla Gaye 2 xam nga lu tax buy bëree àdduna yëpp génn suy bëree jaaykatu fonde yeeg jaaykatu suy crème yi ñëpp jarale suy bëree waa perpe fii jaay ay millions loo xam ne mosuñ koo jaay suy bëree stade arène nationale di jooy naan li lu xew fii koo koy jàppaacol yi booy naa buy bëree stade day fees dellu ñëpp jóg pikin gépp xam ni doomu pikin mooy bër mais billets yi 1000 francs lañ koy jaayee mais Balla buy bëre billets yi 5000 lay commencé jëm kaw jëy fi ndeysaan maa